monsieur le président maa ngi wax ci turu askanu Sénégal di am loo xam ni dinaa ko ñaawlu di ko naqarlu ndax assemblée nationale bu ñu fi xëy see 8 h am ñoo xam ne dañuy doog a ñëw duggugun sax yëkk seen loxo ñu leen di bind dafay mel que ni askan ñuur leen wala wax moo leen ñor ndax mënuma concevoir 87 personnes di wax ci benn wax boo xamante ni ñëpp ñoo yam lu ñuy wax lu tàgg président la république. ak sant ministère yi ak defal ma sama nangam nangam te lii ku ne xam na ni li ñuy yor set une bit sa programme bit sa programme il faut que ñu jàng leen ko moo tax ma doon wax dem ministre de formation mooy il faut que ñoom ñu former leen ndax député dañ leen a war a former mais fii député Macky Sall député nangam nangam yoo c'est député de peuple da ñëw pour waxal askan wi askan wi sam ñoo lay déglu nga ñëw maanaam wax loo xamante ni tey jii. doo wax ak yow xam nga nit koo xamante ni kenn boolu la ci say mbir yow kenn xawul foo jógee sa pas la ñu lay tontu quoi. monsieur le monsieur le ministre xam nga yëf yi baadoolo yi mooy nekk nii rek nit di wax nga koy dagg sa comme ça yoo xamante ni teguloo ko fenn voilà. 87 personnes tey bu nu waxee 19 heures la fii ba 7 heures ci ngoon du ñu jóg te ñu war dem ñoom pour liggéeyal askan bi ñun dépp député opposition juróom-ñeent ni ñoo si bindu yéen ngeen wax 82 personnes. lan ngeen mën a wax loo xamante ne dana yokk si li ñu defoon dara amul kon am na loo xamante ni yi saboté la da ngeen di yàq kon jàpp naa ne il faut que président de la république wax ak le président groupe parlementaire bi mu nekk koo xamante muy organiser seet ñi nga xam ñoo mën a wax ñuy wax mais koo xam ne boo waxee kenn du xam li ngay wax c'est pas ñu wax wala ñu naan député Macky Sall wala député yi la euh, monsieur ministre maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la féliciter encore di la ñaanal yàlla li nga xamante ni mooy li nga tàmbali nga àggale ko am na ay engagement yoo jël daaw am na lu ñu jotoon a def am na lu des bëgg naa xam engagement yooyu noonu pour confirmation yi yi nga xamante da nga ko def au département Mbacké lu ci mel ni Daaru Xafoor Dendey Doyooli lu ci mel ni Ngaabu Ngaabu Digaan ku ne xam na ne Digaan dëkk kilifa la te diggante bu mut sax un kilomètre lu ci mel ni Ndindi Touba Bogo lu ci mel ni Taïf Sadio nga xam ne depuis jamonoy Senghor ba léegi Sadio amuñu tëli kon yooyu yëpp bëgg naa ñu xool li si mel ni am si Kayel ak RN2 ndax ku ne xam na ne président Macky Sall bi mu demee sa sur l'élevage bi mu doon def au niveau de Kayel mun sax dugg biir Kayel dañoo mujj jël maanaam baas bi tuxul ko si kaw tëli bi ndax tëli bi nga xam ne moo RN2 bi dugg Kayel tëli loolu yëpp ay yoo xamante ni war nañ ko maa defar pour que waa Kayel mën a gis seen bopp ci nguuru Macky Sall gi léegi li nga xam moo si toppaan mooy tëli bi nga xamante ni tey mooy tuubaatul kër Sambakan le monsieur ministre finance ku ne xam na ne tëli boobu dafa am solo te président la engagement ñu tàmbaloon bi jël fu matériel tàmbali ko tey jii fi may wax ak yow ña fa nekk ñëpp jël na seen i bagage fayuñu leen yàpp bëgg naa xam te li tuubaatul kër Samba Kane boobu fan ngeen si tool est-ce que ko àggale ak kañ ngeen koy mën a àggale kon daal monsieur ministre li nga xamante ni moom laa lay wax mooy yoon baa ngi noonu nanga nga gën ubbi sa bunt di wax ak askan wi tey tamit programme yi nga xamante moo jëm si TER bi ak BRT bi pour ñoom ñëpp ñu mën a jël ay engagement pour que mag ndax lépp bu yokk yokk askan wi la ñi nga xamante ni mooy waa service de mine ñu xool tamit nu leen mën a accompagner jàppale leen ndax sonn na yokk seen équipement yokk personnel bi ndax vraiment ku fa dem rek seeram day daw ndax seen sax ci suuf lañ koy teg li nga xamante ne mooy service de nga xam moo nekk Colobane aussi rendez-vous yi jël mett na si askan wi ndax fekkee da nga jënd sa oto mu ñëw nga génn ko ba pare ñu may la CMC 15 jours nga war a def mutation pour jël rendez-vous ñaar fukki fan juróom doomaa dawal sa oto te jàpp naa ni rendez-vous yooyu noonu ñoom dañuy liggéey ba 11 heures rendez maanaam oto yi jeex ba pare naa ni rendez war nañu ko mën a dindiwaat képp koo xam indi nga sa oto boo ñëwee ñu jël la bu seen wax heure wàcc jotee ñu wàcc kon loolu mooy li nga xam moom laa lay conseillé maa ngi sant secrétaire d'État bu baax a baax ci ambition yi jël ak initiative bi pour que terre bi ak yi nga xam ne mooy raay bi pour que ñu mën a génnawaat tëli yi pour diggante raay bi diggante Touba ak euh, Dakar sa a ak maa ngi lay sant di la gërëm. merci bonne continuation bonne route. mais am na si ñoo xamante ni dañuy saboté muy la euh, député bojo bojo yu Macky Sall. merci.